première kaddu yi désormais ex président bu Sénégal adduna amul solo adduna mooy war a neen moom mii di président de la république fii may waxeeg ak yow fekk na fële nga xam ne daanaka mooy Arabie Saoudi fële ca màkkatal mukaram ñu gën koo xame Mekk ci kaaba gi nga xam ni daanaka moom ak kii nga xam ne mooy soxnaam ajaratu Marème Faye Sall ña nga foofee di def umra waaye nag am na lu mu ñëw danañ ci dikk léegi ci loo xam ni xët wu yaatoo yaatu la ginnaaw bu ñu leen siyaaree bu baax a baax nuyu leen sant leen gërëm leen ànd bi am na solo baneen bi ci topp mooy ñu ñaanal Sénégal yàlla def ci jàmm ak salaam jàmm jooje yàlla na wesaaroo ci gox yi fasantikoo yi ba ndaw ñëpp nag am liggéey kenn kum ci man di doon gis ci sa bopp Sénégal yi euh, ba meilleur bala noo continuer ci kàddu président ñu ñaanal kii la di Bassirou Diomaye fay ni ñu koy defee ci vidéo yëpp yàlla defal ko sutura ba yan bii nga xam ne yanu na ko yan boobee mën a oyof ci kawam tooylu ba mel ni xottu gerte président Ousmane Sonko mi ànd ak ci liggéey bi sax président euh, Diomaye Diakhar fay moom mii di président Ousmane Sonko ginnaaw yàlla ci kàddoom ak ci ndimbalam ak ci jàppaleem loole loolu la amee waaye fekk na booba yàlla sunu borom it pare na ah, ci kii di Bassirou Diakhar Diomaye fay mooy doon président bu Sénégal loolee amul benn werante ñu jógee foofee nag ginnaaw loolee continuer ci li nga xam ne mooy xibaar yi gis ngeen président de la république démb bi muy génn ci pale yéen ñëpp daanaka te ngeen ko ay gët mu am ñoo xam ne sax daanaka euh, gis nañ ni maanaam lu ne mën naa am ci àdduna wala ngal kàpp lu ñu xaarul ndax bu ngeen déggee ma wax leen loolu kenn musuta xaar ci jamono ji kii di président de la république génn jamaay dugg jamaay jaxeer fay nga xam ne son excellence moom it euh, daanaka loolee di mbetteel boo xam ne ci askan wi la waaye nag nekk mbégte euh, ci képp koo xam ne nag bëgg nga Sénégal meilleur Sénégal gu mucc ayib goo xam ni dana wesaaroo ci xeeti baax ajaratu Marème Faye Sall ma nga ca meg moom nag moo fa jiitu waaye nag kii di borom këram di président de la république di président bi nga xam ne ancien président la waaye ba tey turu président bi du den ci moom ndax loole daanaka day nekk fonk guñ ko war a mën a fonk moom moom moomee ëgsi na gis nga ko uh, ci Arabie Saoudi fële ca Makkatal Mukarram war def li nga xam ne nag mooy umra loole nag bokk ci li nga xam ne daanaka képp kuy julit boo ko mënee tasa koom-koom may la ko ni ko seen koom-koom mayee ñoom ñaar ñi nga xam ne daanaka wax dëgg yàlla ñu amoon solo lan ci biir réewum Sénégal président Macky Sall nag bu ngeen déggee ñu ne ay kàddoom ya nga xam ne yëbbi ko fa kàddu yi paase wul maanaam ñaanal li nga xam ne daanaka mooy Sénégal yàlla suturaal ko moom it yàlla sunu borom defal ko ay xéewal yoo xam ne daanaka foo mu jëm di fa de liggéey liggéey boobee mu mën a mucc ayib tey di fàttali ne moom président danañ ñëw nag indil leen ci ay images yoo xam ne ay vidéo la ci kër ga nga xam ne foofee la dal ci Maroc te fa a dal ndax installé wu na ba def ba pare moom président su fekkente ni liggéey na fële nga xam ne mooy France liggéey boo xam ne bu mucc ayib la heure boo xamee ne am na jot wala mu man ko fële lay féete ca Maroc di def liggéeyam nga xam ne foofee lay résidencé loole tamit ñëpp mën ko koo nangul ndax daanaka diggante France ak Sénégal sore na sore goo xam ne ak environnement bi pour nga def liggéey boo xam ne yaa ngi koy liggéey bitim réew ba pare bëgg nekk Sénégal loolee yomb te it bu ñu xoolee daanaka ci Europe la sës ndax Maroc sës ci Espagne sëj ci France kon léeg daanaka fi ñu toll nii loolu lépp mën naa nekk loo xam ne luy yombal liggéey bi ci moom ñaanal ko nag liggéey boobee bu jeexee mu ñëw ñibbisi fii ci réew mi nga xam ne daanaka waa ñoo ko moom di Sénégal Njaay kii di Bassirou Diomaye Faye nag moom la ñuy jeexale moom it daanaka gis ngeen photo bi xam ne bu am solo la réseaux sociaux yi ñëpp koy wër di ko jaaba joon ngeen ndax photo boo xam ne jàpp na ne bu mucc ayib la ci la nga xam ne image boo xam ne image la bu euh, nuru maanaam nit koo xam ne ko am ambition la nit koo xam ne ko am ay xar baax nit koo xam ne ku am li nga xam ne mooy xalaat bu rafet la ci mim réew xalaat yooyee nag di rafet yoo xam ne war na ko ànd ak kii di xaritam kii di doom ndeyam kii di àndandoom kii di àndandoom de guerre muy président Ousmane Sonko son excellence Bassirou Diomaye Faye ñu ñaanal ko jàmm yan bi euh, oyof ci kawam ni ko waxee gars yi maa ngi leen di béggee bu baax a baax di kontaan ci yéen jërëjéen jëf yeneen information ci kanam maximum de partage maximum de j'aime aimé suñu vidéo abonné tamit loolee duñ ko bañ ndax dana ci xurmbu ñu bàyyi leen ngeen dund lii di image président de république bu Sénégal son excellence